boroom buur nga xam ni jomb naa wutal moroom juleeti it ci Mustafa soppeem ba moom mi mu tànn daaf ko muy buntam ba te sante Seex Bamba bu wete yeesu lu feddali ak njëbbal fasaad góor góorlu ngir xam ni moom lu yàlla def xadimi lil Mustafa muy jëwrinam ju yéeme te jéema way xam lu xaandar Mbàkke ak doonte lott naa bi doona sakki moo doon na tey donoom ci lislaam moo foog sunna moo no suñ boroom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér te suñ boroom kàttanal ko ba lim na man na liggéeyal Sëriñ Tuubaa mu mottali ko su ko defee ñuy jël kàddu rekk ci turu sëriñ Ahmad Ndiaye bi nga xam ne mooy jëwriñu taawunu ala xidmati Cheikhul Khadim soppay Serigne Abdoul Khadir muy mbooloo mi nga xam ne Serigne sëriñ bii di Cheikh Bachirou Mbacke ibn Serigne Abdoul Khadir moo leen nose fii ci biir réew ak ci bitim réew ñu ànd ak moom ci liggéeyal Serigne Touba bi su ko defee sëriñ bi it woon rek balaa ñoo tàmbali ñu. fàttaliku suñu jëwriñ muy sëriñ Alaaji Fàllu Buso ak ku mel ne sëñ Baye Diop ak mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo nekkoon ci kër gi te dawlu te nga xam ne lii ñuy def ñoo ko daan ànd su ko defee ñu ñaan suñu borom yeesal yërmandeem seen kaw ci barke borom Touba ci barke sëriñ Abdoul Khadr mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara waaye di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi suñu kilifa gi toog ci suñu biir jataay bi ñu jëmmal muy Cheikh Mouhamadou Bassir ibnu Serigne Abdoul Khadir Mbacké ñu koy ñaanal yàlla suñu borom suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram te kattanal ko ba lépp loo xam ne yéene na ko liggéey ci toolal Serigne Touba bi mu àggale ko nu mu kawee njortoon ci barke Cheikh Khadim waaye di yëkkati ay kàddu yu gàtt yu bàyyi ko ci mboolem. jëwriñ yi ngeen ñoom la Serigne Khadim Diagne tudd fii ci biir jataay bii ñi fi teew ak ñi nga xam ne yàlla dogal na teewuñ ko ci seen kàddu lay waxe lay sabab sa itam nag sëriñ bi moo ñu tànn teg ci seen kanam ngir bëgg ñu àndandoo ñun jabootam gépp maase def wenn say boole suñu xel boole suñu xalaat boole suñu alal boo boole suñu ñaq lépp def ko muy benn liggéeyal ko Serigne ci gannaaw moom yi ànd ko ci liggéey bi nga xam ne moom la sóobu kon képp koo xam ne sëriñ Khadim Diagne tudd na ko na xam ne kàddu gii may yëkkati na ci biir moo xam ñi nekk ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew waaye Serigne bi ñu lay seedal njaboot gi nga xam ne ñoom nga ñu booleel ci liggéeyu Serigne Touba yi ma di leen xamal ne ñoom ñëpp. ku nekk am na ci pëstéef bu rëy am na ci yéene ju rëy xalaat yu rëy itam yoo xam ne luy gën a jëmmal kër gi ak luy gën a jëmmal liggéey bi ak luy jëmale kanam bi ñoom ñëpp kenn bu ci nekk ci loolu nga nekk na nga ko bëggee woon nag ba wax ko ci sa kàddu ne su ma sañoon da ngeen di nosoo nekk benn ndax alal ji nga xam ne moom ngeen di dajale di ko yëkkati di ma ko jox su ma amoon la ma gënal ci yéen mooy ngeen ànd àndandoo nekk benn def benn say di liggéey Serigne Touba la ca jiitu itam nga wax ko mooy ñi ci nekk ci barab yi nekk ci Sénégal te fàttali ci kaw nañ fa sox ak daayira taxawal seen bopp ci seen biir njaboot dafa nekk ngir ñu jàngal leen alxuraan ñu xam waaye jàngal leen xam-xam diine bañ mën a xool xam ni ñu toppee seen bopp waaye bañ mën a ràññee li Serigne Touba bëgg bañ mën caa jaar ñooñu nag ñu ci bari dem naa ca barab yooyu waaye loola gën a digaloon bari nag ñoo xam am na ñoo xam ne ña ngay sas ay daara di fa mokkal ak ay nit alxuraan di jël ay nit di leen fa teg ngir ñu di leen jàngal xam-xam rawatina pas-pasu Serigne Touba ak yéenam Serigne Touba kon loolu maa ngi lay xamal ne sol naa sama dàll dem ci barab yu bari teewal na fa di xool la nekk ndax man loolu rek mooy li ma wax waaye ma di la seedal ne taalibe yu am positif lañ waaye taalibe yu am yéene lañ taalibe yu bëgg jëmmal kër gi leen itam ba tax na am na sumb yu bare bari yoo xam ne sémb nañu di ko liggéeyal Serigne Touba ci jëmm ji lu ci bari nag boo xoolee diggante li tàmbalee ci weeru koor ba fii ñu toll tey ci màggal seen xaalis seenu sax tënk ko benn yoon te lépp loo xam ne tudd nañ ne ko ñun ñii mu doon yéene yoo xam ne yéene nañ ko ngir taxawal ko jëmmal ko liggéeyal Serigne Touba bi kenn des ci gannaaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk soññ nga sa bopp soññ njaboot da nga àndal ñu def ko muy vendor say jaar ci suukaru koor yi ñëw ba ci tabaski ñëw ba ci tey ji fii ñu toog di ko tàmbali yàlla nañ ko àggale ci jàmm ñoom ñëpp kenn ku ci nekk la nga ci yéen yàgg sa njaboot ak na ba fekk mu fii loola nag la nga xam ne jëmm la jox jëmmal nañ ko tey jii ci màggat màggal te wax ne lépp loo xam ne aju na ci màggal mu doon ci yéen yéene dañ la ko bëgg a teggeel mbàkke te ñoom ñëpp dañ ko wax na ba te ren ji xalaat nañ ba am dañ ca tàmbali may sàkku ci yow nga ñaanal ba yóotu gi nga xam ne yóotu nañ ko ngir jëm si ci yow ngir liggéey la sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa gàttal duñ den bopp ba ren jii wax yaakaar naa fàggu nañ deux tonnes cinq cent ceeb ak dix-huit bi bidon diwlin ak lenn ci alal ne xam ne mëneesu koo tudd ci biir jataay bi loolee nag kon lañ wax man dalal lañ sama xel man mi nekk seen kanam ba tax na man mii maa ngi sàkk nga ñaanal leen bu baax a baax a baax ba lépp loo xam ne yéen waaye ma gàddal sama gàtt foofu ci ci sant leen ci soññu leen ci liggéeyu Serigne Touba bi Serigne Touba de képp koo xam ne yaa ngi koy liggéeyal boo ko gisul ci sa bopp rek seetaatal sa xol wéetal ci biir nga nattaat sa xol xoolaat sa pas-pas xool ba xam ndax ni ngay liggéeyal Serigne Touba noonu la wala déet waaye képp koo xam ne am nga pëstéefu liggéeyal Serigne Touba pas-pas ba wér nga xool yoon war nga war a jaar. ab sag nga cee am waaye coono bi lépp sëriñ Tuubaa la koy sàkk loola nag képp koo xam ne bëgg nga koo xamal sa bopp na nga ko nattul sa bopp waaye rawatina nag jëmm ji nga xam ne moom lañu sëriñ Tuubaa boole muy jëmm joo xam ne day kilifa bu mat kilifa ci nattuwaay yépp nag kilifa boo xam ne jikkoom lewet na kilifa boo xam ne yéenam réew na kilifa boo xam ne xolam tàlli na waaye kilifa boo xam doo ko dégg ci dara mbaa gis ko ci dara loo xam ne daf lay yuqatloo ci liggéey Serigne Touba kon ñun yàlla suñu borom tànnal nañu kilifa bu mat kilifa nañ ko xam bu baax a baax te gën a laxasu topp ci kawam gën a am ci moom yéenee liggéey Serigne Touba ndax kat moom léppam Serigne Touba ndax fii mu toog nii bis bi gën a xam ne ne jàpp naa ne bu dul màggal Touba bis ko ko ci waaye bu ko Cheikh Mouhamadou mu tax mu taxaw waxoon ko bàyyi li nga nekk tabaay bu léegi mu ra mu romb ñëpp taal ko te loolu lépp defu ko dul te yaakaar naa képp koo xam ne séq naa ak yow rawatina biir kër sëñ Abdul Xaadir ji mu nekk ñi fi doon ay na leen kilifa waaye yëmul ci wax ko doo ak ñoom waaye loolu dafa ñëpp nag ñi sëñ Tuubaa jabooteel boppam ak ñi sëñ Tuubaa jabooteel ñu mën leen tudde ay seex wala ay njaboot ñun nag suñu ndax Seex Mouhamadou ko téye bu baax te fonk maa ngi ci soññ mboolem taalibe bi yëpp ak bi yëpp waaye nag ni ko sëñ Xaadim daan wax yàlla suñ borom dafay sàkkoon jëmm ji alxaaji Mahamadul Fadal Bousso jiitu woon lii yàlla suñ borom dikk ak moom coobare waaye mu doonoon jàmbaar yoo xam ne liggéey bi nii lépp moom moo ko sosoon tàmbali ko ba yàlla dogal fa ca aw sa sar kon buñ ko fàtte mukk ñu man xam ne buntu njariñ bi moom moo ñu fu ñu toll dañ koy fàttaliku te di ko ñaanal te xam ne ginnaaw yàlla suñu borom lii lépp moom nañ koy fàttaliku bu baax ak mboolem taalib yi nga xam ne àgg nañ ci kër te daan ci am taxawaayu taxawaayu wér di sant itam na maam Faati Mbàkke mi nga xam ne moom la yàlla jiital ci biir kër si ngi ci am yéene bu baax ñu taxaw ak soxna wëñ mata kebe yi lépp loo xam ne taalib yaa ngi koy def ko yëgee ñoom si ñu ci des gannaaw maa man ko seedal sëriñ ci lépp loo xam ne ñu ngi koy def ba ci màggal gi def nañ ci jëf yu rëy kenn ku ci nekk itam woona ma wax ma ci yéenam ak xalaat kon ñu ngi la koy seddal man nag seddal rek laa laa ci seen diggante ak yow ba waaye li nga xam ne da nga def ko dégg loola yow yaa waaye li nga xam ne yow yaa ngi def yéene ko damaa am yéene nga ñaanal leen ko tam dande waaye nag parte naa itam daayira ahlu tarbiya bi nga xam ne sëriñ bi yaa leen jaral sa xam ne seen way jur ñoo am yéene ci yow am yaakaar mu doon ñu doon ay jàmbaar am taxawaay am yéene am pastéef ci kër gi lool ak ñi nga xam ne ay doomi soxna rek te dëkk ci ay buntu kër yi borom Tuubaa yi ñoom itam bàyyi leen seen biir jiw bi biir jël bi ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa loola nag xam naa xelay fàtt waaye ñu ngi ciy jiitu suñu kilifa di Sëriñ Moodu Maamul Mbàkke xam naa xelay fàtt waaye mu laa waroon jëkk tudd ndax Mbàkke moo nekk suñu kanam doon suñu làmp neetukaay du ñu war aw yoon te dina ñu gën a xam ne la mag la te sababu waaye barki démb ba léegi téléphone am dégg guut man jëmmal bi te fu ma toll maa koy gis fu mu toll bi may laaj fu liggéey bi toll kon kooku yéen a réew kon nag Mbacke ñu ngi lay seedal daal ne mboolem ñi nga xam ne aju nañ ci njaboot ji moo xam ñi ne tari ay soppe ñoom ñëpp a am yéene réy ci jëf ji kon nag sëriñ bi ñu ngi lay di la siyaara di la Serigne Sidil Mokhtar ak man mii ak sëñ Ahmad Ndiaye mii ak Serigne Khadim Diagne ak mboolem ñu ko àndal eh, bis bi lépp ci positif lañ ko teg ak pas-pas waaye dama lay seedeel rek na la ñoom ñii nga xam ne si itam ñooy njaboot ku mel ne Serigne Ahmad Ndiaye Serigne Khadim Diagne seen taxawaay tax na ñépp sa war a ànd ak ñoom ci liggéey bi loolu it ñu la koy seedeel. leneen li ci des mooy mbooloo mi nga xam ne dañoo jugee Ndakaaroo Cees ak fu ne ñu bàyyi koo fa dikk ngir sa jëmm ji ñenn ñi fanaan si ñenn ñi nekk ci yoon wi di dikk loolu it ñu ngi lay seedeel na la lépp day duggaat ci kàddu yi nga xam ne moom la Serigne Ahmad Ndiaye wax rek mbooloo mi fi daje daal leen rek moo leen fi dajale jëmmi Serigne Touba bi lii nga am ci mbooloo mi itam leen rek moo la ko may muy bëgg gi nga bëgg Serigne Touba ak fi nga teg Serigne Touba li nga xam ne si nii tax na boo wootee maanaam bis bii mën nañoo wax ne dañ ne màggalu Sëriñ Abdou Khadre nga ñëw na kenn ku nekk bàbbee ko waaye bari na ci ñoo xam ne dañ ne la Serigne Bass moo ñu ko yëgal wala moo ñu woo ndax moom bisam dëgg bis bii ci bisam yi la waaye bisu baatin la ci moom waaye bisam dëgg mooy màggalu Touba ku nekk xam na lam cay daj ak nam cay doxee waaye bis bii nag day bisum nattukaay bisum nattukaay mooy nit ki nga xam ne si nii siq na ak yow teraanga jëflante yow lu ne sa bët ma sa xonq nga jàkkaarloog moom sa bët boobu weex kooku doo xaar mu lay woo ci sa bis ci bisam ci bis bii nag day bis boo xam ne Cheikh Mamadou Bachir kum ko waxati wax war ngaa xam ne bisu ki ko boole ci Serigne Touba amul bis bu ko gën a fonk ndax bu dutoon Serigne Abdou Khadre responsabilité yii mu yor ci kër Serigne Touba gii ak kàddu gii nga xam ne moom nañ ko dégg bu dutoon Serigne Abdou Khadre loolu daam kon ki ko boole ci loola amul lu ko gën a kawee moom moo tax mbooleem ñi ñëw jëf ci jëf gii nañ yëg ne sëriñ bi jëf jooju amul jëf ju ko gën a kawe ci moom ku fi indi ginaar wala picc sax jàppal ne sëriñ bi loolu moo ko gën a leneen loo ko mën di jëfal ci àdduna ndax loolu mooy pas-pasam ci digganteem ak sëriñ Touba kon loolu ñu ngi leen koy bàyyi loo xel moo tax taalibe yi nga xam ne bàyyi ko nañ fu di ñëw di sonn ci bis bi ak ku mën di doon jàppal ne loolu sëriñ bi yëg na ko ci xolam tey ku nekk xam ne ne sëriñ bi buy jug di dem sax du am fu mu jaar li ko waral mooy ñi ko topp ñëpp kenn leen rek lañ ko toppee muy Sëriñ Touba sëñ ñu koo bañ a bëgg sëñ ba sëñ ñu ko bañ a bëgg ndax li ko waral mooy daa bëgg Serigne Touba ca yàlla tax moo tax Serigne suñ borom tàggatal ko jaam ñi ñu bëgg ko ca yàlla tax di ko sonnal ca yàlla tax am na ñoo xam ne ñi ngi sonn ci bis bi di fi daj lu ne bu ni ñibbi sëriñ bi du ko yëg bu ni ñëw Serigne bi du ko yëg loolu ku liggéeyul Serigne Touba ba am ngërëmam mënoo ko am keneen ku mën di doon looy def mën nga ca àllali pexe ak lu mën di doon waaye bu nit ñi ñëwee bu ñu dem ku ne dana la tàggu am lu soxla bari na ci moo xam ne si ñëw nañ ca mbooloo lañu doon te bu ñu dem duñ gis sëñ bi te buñ ñëwee joxuñu ko loxo li leen tax a jóg mooy jëmmi sëñ Tuubaa ji sirru boobu nag bëgg sëñ tubaab képp moo ko mën a mare damay wax ne xasida yi lenn laa yëg ci lu ko doole muy bëgg sëñ Tuubaa ndax bëgg sëñ Tuubaa googu moo lay dugal ci yu baree baree bari ngir nga mën a jariñu ci sëriñ bi kon nag sëriñ bi ñu ngi lay wax ne la lii sëriñ ax Axma Njaay wax moom la la ñëpp toppee mooy koo mën a dimbale yaa ngi ko dimbale koo xam ne jafe saafara maanaam li gën li li li gën a mat roy ci moom mooy damaa wax ne Serigne Bassirou dafa jëlub daram bàyyeet nit ñi des ak bi maanaam daa jëlub daram bàyyeet nit ñi moo tax waxtu woo ko séenee ba jàpp na la ñu teg ci daram dara gàkk na ci boo ko xoolee da ngay da xam ne kii dafa nekkal Serigne Touba. yéen ñii nag nga xam ne yéen a aju ci moom nun ñi nga xam ne ay soppe leen bëgg ko ngir Serigne Touba noo ngi leen di sant yéen. ndax moom mii seen alal la moom moo leen moom moom it yéen ci biir kër sëñ Tuubaa moom ngeen am te bu ngeen nu xataloon nu nu xat at mu jot yéen benn yoon rek ngeen di wax ci at mi muy ci bis bii sëñ Axma Njaay mii at mi war benn yoon lay wax ci at mi muy bis bii li ci at mi lépp ñun ñu ko sopp ngir seen tubaa noo koy wax noo koy def ndimbal lu am dafay njëkkee ci nun nun ñii la koy jox bu dee lu ñuy xaña la yéen da leen koy xañ xañ gam leen koy xañ nag mooy lii leen di jariñ loolu kenn leen koy xam mooy buñ leen yàlla na yéeg ku nu teg ci jaag daal ni sëñ tubaa mi ngoog di ngeen xam ne am yéenub sëriñ ndax nag lim leen di defal yéen loolu da ngeen di dajeeg moom sëñ Basiiru mii képp ku ànd ak moom jox ko sa bopp àdduna ak alaaxira bul jañ bul ñoddi te yóotu doxal lii ñëw da di daje bayal la bay te muñ a muñ ngir ñu ngi lay toggali añ baykat bu ñuy toggali añ na yittewoo mbayam moom nag man gone laa waaye damaa teela a dugg ci mag bi toog na ma toog sëriñ Sidi Muxtaar toog bàyyi seex wax ma dégg ma toog mu toog sëñ Muntaxa wax ma dégg te loolu ma dégg ñoom ñaar kenn ku ne wax ko ci musumaa gis ci kun ko wax loolu nag may wane ni lii mu yor nii loolu préparation la fan yi génne nañu benn archive màggal seen soin bi 2004 discours ba mu ca def arabe la commencement ba fin te booba du ci at yi yëpp waaye pas-pas gi ci sëñ Tuubaa nag dafa toll moom ci fi sëñ Touba tolloon ba mu naan li xaaloolu yarkan kii ñu jàkkaar lool fi mu toll nii oto Land Cruiser ak kalandoo la yemale fi mu toll nii mbasin perka la yem ci moom sëñ Bas banal lépp jublu seen Touba donte nag ci loolu la masane waaye dafa am geneen mbubb moo xam ne da koo solaat te loolu nag nun ñi nga xam ni dañuy bëccëg ndoog moom ak du guddee ndoog moom di ko fekkee warees na koo mën a seere ñu sant leen yéen ndax bu ngeen nu xataloon nun dañuy xat waaye xam ne lii mu yor nag alali seen tubaa la fu waay mën a jébbul rek ci nga bokk ndax fii mu toog mooy sëñ Muntaxa te sëñ Muntaxa mooy sëñ tubaa loolu rek laa ne woon naa ko ci naa ko ci naa ko ci ñambaas te dolli ko ci te ngeen xam ni ku nu bëgg a ngi nii ku nu soppa ngi nii ku nu wóoloo ngi nii lu waaye di lamb di wër sëñ tubaa boo dajee sëñ Bass Abdou Khadre jàppal ndax responsabilité bii mu yor am na keneen kook bu ko yoroon dana ci defee wala mu waxee ci waaye moom mii campagne wul sëñ tubaa politique wu ko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 ku àdduna àddunay rammu waxtu màggee di rammu nu xam ni gaynde daa yemu ba muy dikk la sedd woon waaw ba yàlla ne na ma jaamu Moustapha ne na ngeen ma roy sëñ Bamba na ngeen ma liggéeyal dootoo dégg leneen yàlla moom ñu digal leen ñu jaamu ko Moustapha la yebal wax ko nun koy jaamoo mu ñëw li na ngeen ma roy sëñ Bamba ne jëpp ni na ngeen ma liggéeyal leneen amul jaamu yàlla liggéeyal roy yonent bi liggéeyal Xaadimu Rasuul sëñ Basiru mii lii mu am liggéeyal sëñ Tuubaa maamam moo ko may fee mu taxaw nun ñëpp la fa neel moo tax ku amam xel bu xewlee na ñëw neel ko fi daan niru gone waan mag la de ku mag jur ku ne xanaa xamoo ni mbooloo mi ku la magul bàyyi magu ma wax ko tey ku la magul bàyyi magu la sëñ Abdu Xaadir mag ba sëñ Abdu Laat wiis moo toog di sëriñum ñëpp di ilimaan yi ñëpp gën a ragal yàlla ñëpp dàq julli ñëpp mais ñu ko gëram dayam mu mel ne gone tey mag bu du dëgg yàlla bu ma kii borom xol ba leere koy bëgg borom day ju liggéeyee koy topp ndax nit bu xol ba leerul ku ko féete kaw da koy gàntu gëm yomb na waaye nangoo jafe ko nangu lu yàlla dogal da lay neex yéen ñi toog ñëpp yéen ñëpp nangu dogal yàlla ci moom kon ñoo ngi lay nuyu li la ñëpp ñaanal ñoo ngi la koy ñaanal fan wu gudd ak wér ak mucc li nga nekk ci sëñ bi coono bi wax naa léegi ci sa kër ni la ñeewuma la ma laa yërëm li ñëpp war a yenu yaanu ko yenul kon boo nu soxlaa danoo war a jóg nit ñi ma xise bu rëy léegi sa diggante ak sëñ Muudu Mbàkke taaw sëñ Abdu Xaadir daa toog rek ngeen ko dann defal ko du rëy mu ni sama loxo dinaa ko wane ci Basiiru te kat koo mas ne ak a baax sëñ Abdou Khadir ndax mel na ni Moodu Samos ku sëñ Abdou Khadir nungul yàllaa la nungul te ba mu toogee yaay bàyyi faalam yàggu fi dara jox sëriñ Seex nga ronu ko bu wootee nga daw bu nee toogal nga toog bu nee jógal nga jóg yow murit nga te ak cëriñ woomul de fi la ko sëñ Bamba fekk fi la fekk ab jullit fi la fekk ab taalibe xam nga lu mu fendi murit akum seex jullit bu doxul mënoo doon taalibe taalibe bu doxul mënoo doon murit mënoo doon saadix jullit garab la taalibe matt la murit këy la saadix ab doom la doom day wàlle kenn du ko wàll boo kasan ba mu xóot nga suul paanub doom toog fanweeri weer ñëw wàqi ko doom nga fay fekk mooy néew murit saadix ci bàmmeel suuf du ko lekk wàllu yi suuf du ko lekk ku man alxuraan ko maandu suuf du ko lekk sëñ Basiru mi murit saadix la amul ngànt musuma gis ku ko gën a rafetub xol musuma gis ku ko gën a ragal daa ragal xanaa xamoon ni waa ju wax dëgg ragal ga mu ragal yàlla wekk ko day wàll ci bindéef gi ndax bàkkaar bu dox diggante jaam ak jaam moo gën a diis bàkkaar bu dox diggante jaam ak yàlla koo gis ñu ragal na yàlla mu ci bind yi falaxe ragalul yàlla bàkkaaram jaam ak jaam moo gën a diis bàkkaaram jaam ak sëñ ba sa bëgg nit moo bari yërmande loo waxtu lu sëñ Bamba du ca tontu ku jàmbaaree ngi nii ku maandoo ngi nii ku bëgg sëñ Bamba ngi nii ku koy liggéey la ngi xam nga liggéey bi fa mu déparé ba sëñ saa yóbbu soxlaa lu jafe at yi gën a néew nii ca puut mu yëg ko yónni ko dem ni sëñ bi mën naa ko sëñ bi xool jëmm ji mu tóor mu defa nii amul lu mu ko defee sëñ bi ni ko ndigal làngoo sëñ bas man mani wut ci katal plan wut ci benn wut oto yu mag def sëriñ liggéey liggéey ba nam waree foofu matti mépp sëf ko ci ay oto ko sëñ Saliou xam nga la ko wax maa ngi ñaan sëriñ Tuubaa mu liggéey loola sa wenn waxtu moo gën suñ junni waxtu waaye sëñ Xaadim la ngeen du jéggal bu baax ndax yéen di ngeen a jébbalu ci sëriñ bi noonu nag ca kañu jébbalu moo jël sunu kàddu jébbal ko ko moom moo tax cër bi ngeen ci am lañu ci am am na barab boo doon dem doonu fa fekk wala bu nu fa fekkee dunu wax waaye li ngeen am ci moom lañu am ci moom ñun sëñ Tuubaa lañu gëm yaakaar ko topp ko sëriñ bi nag jël kàddoom ne ko yaay samay tànk yaay samay loxo yaay samay gët kon moom bëti murit yëpp moom la làmmiñu murit yëpp moom la tànki murit yëpp moom la kon moo tax fu mu dem murit yëpp fekk ko fa fu mu dem murit yëpp fekk ko fa lu mu nekk ànd ci ak murit yi man nag ma mën a seede ci moom lu bari lu baree bari loo xamante ne bi jataay bi du ko maye waaye nag message bi may joxee li ci ëpp ñun taalibe yi moomuñu ko ñi koy gis ci média baa nga di ko dégg ci internet baa nga seeni commentaire te xamoo kuy Cheikh Mouhamadul Bachir li ci ëpp ñoomam kàddu gi ndax li may wax tout le temps bu fekkee ne pression ak coow ak tuuma ak wax mooy waral kii dellu gannaaw bu ñu yeboo ñu noppalu ndax kii moom pression ak tuuma ak coow taxut mu dellu gannaaw mukk ci àddina ndax képp koo xam ne xam nga ne sëñ tubaa mooy maamam war nga xam ne kenn mënu ko tege pression walay coow walay wax ba tax mu dellu yootaa ci lii muy defal sëñ Tuubaa loolu nag lu fi yàgg la sëñ Tuubaa subir na pression yu ëpp yi muy subir sëñ tubaa dégg na lu ëpp li muy dégg waaye mës sa daw mës sa yokkat loolu nag liggéeyu seytaane ndax xëruurul war aa xarra nasara bi kay dihi wasanna zunoonu wa zunoonu xëruuru loolu waxoon loola du fi jóg seen de sa mooy ñu xam ne képp ko xam ne toog nga toggaayu sëñ Tuubaa na nga xam ne la sëriñ bi amoon ci coono danga ci jot sa wàll moo tax ñi nga xam ne dañu koy séen ci média mbaa ñu di ko séen ci internet te xamuñu jëmmam nañu def ndànk ci moom ndax moom bu doon am na luy lore ñu bari danañ loru waaye malheureusement wala heureusement laay wax amul dara luy lore ci moom ndax xam na ne kàddu sëñ Tuubaa la yore Cheikh Mamadou Bachir du wax lu ñaaw ndax xamu ko du def lu ñaaw ndax mënu ko du fayantoo ndax talu ko làmb ñi suñ tubaa kenn du ci fayu làmb ñi suñu tubaa kenn du ci kenn du ci wax lu ñaaw moom nag xam na ne yurut aw làmmiñam làmb ñi suñ tubaa la yor xam na ne ay jéegoom jéegooy suñ tubaa la xam na ne ay gëtam gëti suñ tubaa la moo tax lu rafet lay xool lu rafet lay wax et ça c'est extrêmement important wax naa ko bërki dem bi ñu demee Saint-Louis ma ne ko fii ndar gii nga ñëw tey la sa maam taxawoon le 5 juin le 5 septembre 1895 daje ku gënoon na soxor président yi fi ne ak seeni armement ak seeni spahis ak seeni njuuma ak seeni sofa ak seeni armement ak seeni renseignements généro te taxul ñu man dara ci Sëñ Tuubaa loola nag mooy daw ba tey waaye moom ab deram am na ko ko wax léegi daa saraxeb deram di sang derub Sëñ Tuubaa loolu nag du jafe la koo xam ne saraxa nga sab der yaa ngi dëkk ci sang derub Sëñ Tuubaa saraxa nga sab der mooy loo ko mën a wax du la tontu. waaye nag sang na dërëb sëñ Tuubaa moo doo dox ba gis ko loo xam ne dana mën a tax nga xeeb ko di xeebale sëñ Tuubaa te loolu mooy dëgg dëgg dëgg liggéey bi nag ndax sëriñ bi ba mu nekkee gànnaar am na mag ñu fa ñëw ba mu yeewi la ba mu yàgg mooy ne nañ ñu leen dabiwaat ba ñu mu yàq sama dara ñu ne ko jëreen bàkke mu ne ndax xam ngeen lu yàq sama dara ñu ne ne mooy yaru melokaan woo xam ne ko la gis day xam ne ci wax sama waa kër nga bokk ba luppi ngay def loo xam day tax ñu xeeb la di xeebal di ma xeebale man sëñ Tuubaa kon moom day sang derub sëñ Tuubaa kon nag li ci am solo mooy ñu topp ko ne ko daan ndax bëggeel gi sëñ mu doon wax léegi moo li ci am ñi ko bëgg ay taalibe bi ci gën a néew ñi ko topp ay taalibe bi ci gën a néew ñi muy jariñ ay taalibeem ñoo ci gën a néew li muy doxal sëriñ bi kenn koo xam dañ ko ko doxal guddi ak bëccëg amut te loolu xam naa ci dara bari na mission yu bari yoo xam ne noo ko ànd defandoo na mission yu bari yoo xam ne xam naa ci lu baree baree bari nit nag dana nekk xalif général yor titre bi te du fi mag te am na lu sieblaan waxoon waxoon sëñ Murtala danaa la ko wax Mbàkke tey sëñ Bilal dana woon sëñ Murtala ñëpp la mag waaye yomal xam kenn du la fa mag nag yow mii Mbàkke ñu baree la mag waaye nag ëllëg kenn du la fa mag ndax say jëfani toll say yéene ni toll kenn mës a gis sëñ Bass Abdou Khadre nga gis ko fii kanamam ñëw mu soppi ko kenn mës a dégg ne ma wax kenn mës a dégg ne lam la ma fasale kanamam kenn mës a dégg nga am yaakaar ci moom ñëw ci moom yaakaar yàqee ko ndax ma sama wax ci gémmiñam na ma yaakaar ju tas miinul yoonu kër sëñ Tuubaa kon nag nanu xam ni murid li ñu am mooy ñan kenn ku ne da nga fonk sa kilifa anu raditu wa huwa anni radi bila makariha wala amradi radari gayri jihdi shaytana man tajabal mamara wal awtana فرق لغير جهتي لعين يسوقه لخيرنا المعين التي سفت وسفت نبي توبيق وادنا قالوا للعام قد ضيع لي مال وانبياء بدت لي اليوم برب الغيم أعاذني ممن خلوا وخيبه لا يتوجه لنهوي مدعب أني محد مكاره ودعب سعى عادتي بغير محو كتبت وكوني العبد الخديم كتبت شكر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير الشيخ محمد المنتهى ñu fi jëm seen Tuubaa tey ci kaw suuf yàlla suñu borom guddalu fanam dolli ak wéram ba mot li mboolem laaj yi nga xam ne na ko ci biir Sëriñ Tuubaa di nuyu itam Sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Abdou Khadim di suñu kilifa ci biir kër gi ñu ko ñaanal mu yàgg fa loolu te ànd ak wér moom wala nag ak ñëpp di nuyu mbokki taalibe yi ñu fi nekk yëpp xam naa kàddu yu sax gudd ndax li ci waroon soññee sëriñ Ahmad Dia leer na ko ak sëriñ Moustapha kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax ak leen gërëm di sant ñëpp nag ndax ñun matuñ kenn sëriñ te loolu itam fu wër leen ko rek ndax bal insaanu ala nafsihi basiiratu walaw alqaa ma'aazirahu kon ku yàgg na xam sa bopp te dara day ci yóbbu suñu tubaab yi bu ñu masal waxee biir soxna Tade bi dañuy tiit suñu saa yi daal wax ne bu ma déggee bu ne soxna Tade bi dangay tiit waaye jàpp naa ne Tade bi suñu tubaab rek koom kon rawatina naa ñoom ñi nga xam ne motuñu kenn kilifa kon nag ñu ngi leen di sant yéen waa daayira bi yëpp ak mboolem mbokk Tade bi yëpp ci seen jëf ak seen posture ak seen taxawaay xam ne. ak yëpp yéen a ko àndal ñu ngi lim Serigne Touba di ñaan Serigne Touba dolli kattan bi ak loolu loolu ubbi leen ubbi xew li tam donc mboolem somb mu somb wala naaru mu somb ngeen àggale bis bii bisu gàncax gi doo xaaju àddina Sëriñ Tuubaa it waxoon ci maam Cheikh Ibrahima la mu ci waxoon ne ko yaatalal seen jëmm ba ngay dégg soit foo xam ne suñ ko jéggal na si bakkaar kon nag ñu war am yaqeen ci ne saa su ñu si dee si waatee la di Sëriñ Tuubaa daal woon képp ku ci am procès Sëriñ Tuubaa daal ko dëgg kon ñun bis boo xam ne. ñu ko waa kër Sëñ Tuubaa yëpp amee rek noonu la demee ndax sëñ Moodu Musa muy mag ci jabaru sëñ Mbàkke Musa dafa wax am benn bu tënkoon ci jabaru Sëñ Tuubaa ni rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci ay saxaaba ne asxaab yi kër ñu jur ilay yi si muxtalaytu muxtalaytu sama saxaaba yi ñoo lay liggéey boo ca dajeel rek mu mu mën laa gindi nga jàpp ne mooy ba ci gën ba muy marsiyaa sëriñ bi nag ba agsi Gawar dafa wax ne foofu man talqanihu xiitahu kaana sayyida axir ñun ñëpp suñu tubaab yëpp dañoo mel ay butéel koo ci dajale rek dangay jàpp mooy sant sant tàgge kon nag bis bii ren sax daanaka mën yéene bëgg buñ ci àggee taalibe yi jàngee kaamil wàcce ko rek ndax màgg gi day yàgg daanaka ñetti fan lay doon boo ko boolee ndigal li nga am ci màggal Tuubaa yi day jëriñ ci man moo taxoon ren ma yéene woon rek dañ koy nu mu ko gën a war a fane rek waaye nag nit moom boppam ndax da ngaa am loo moom sa bopp am lu seen kii am sa bopp loolu war mooy bàyyi teen bi ñoo yàlla def na sax yëgalu ma ko kenn nit defoo ci communauté boobu ci kenn ndax li tax mooy ni comme dangaa yor yëf yi yor mburu yëpp yor mburu yëpp di yor kàddu jàmbur sañoo woote sa mbirum bokk ci kàddu jàmbur loolu waral loolu képp la mais bis moom amul lu ëpp waaye ñaari at ba ca des it ma am tuuti lu ma seetloo ci mooy adduna ji bëgg ëpp te Sëñ Tuubaa suñu plan daan am lu fekk lu sàmm bu adduna buggee rek Sëñ Tuubaa génn ba gis nañ ne ni ma ko gisee daal buñ ko soppiwul dana mujj lu baax lañ ca lu sama mbaa ci moo tax ba ma demee ba am ci liggéey bu mu ko ñàkk def ñoom ñi seq liggéey bi sart yooyu laa leen joxoon mooy nañ fexe ba na jëm ci mbirum adduna buñ ko dugal la ci ëpp li tax a bis bi mooy fàttaliku borom bis bi ci alxuraan jox ko ko addiya ak jàng ci alxuraan def ko addee Sëriñ Tuubaa ni ñu ko daan defal bu doon ak jàng xasee Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def muy escalier yi yéeg di gën ak ci moom ndax bu ngeen xoolee jotaay bi wax dëgg boobu ba tey ñuy wax wax dëgg yàlla moom waaye bu ñu yëkkatee fukki bayit ak ñaar ca xasida rek ñëpp ko yëgaloo loolu lañ Sëriñ Tuubaa defal tool kon ñu ngi sant bu seen pëstéef ndax buñ nopp la waaye rek nañ xam ne wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin suñu borom dafa wax ne dee leen jàmm ba keroog ngeen di fekk si liggéey Sëriñ Tuubaa rek dara jiitu ko jàmm moo tax rek kon ñun itam ñëpp lañ gën a fedd suñu laxasaay te lépp ñëw di liggéey Sëriñ Tuubaa te xam ne liggéey Sëriñ Tuubaa kat lépp lu waay di yuutu moo ci gën a gaaw lépp lu waay bëgg a mucc si liggéey Sëriñ Tuubaa ci gën a gaaw boo ko dee tax ba sellal nag ngir jëm sëriñ bi ndax Sëriñ Tuubaa nanguwul kuñ gis daal ko suñu la ko bañ nangu itam nangu jëf lu mu rëy rëy nga yéem jëf ja ndax jëf ji lu mu rëy rëy bañ ko yéem boo ci génnee sëriñ bi dara dootu la Sëriñ Lahad Mbacké waxoon ne Sëriñ Tuubaa li ma defal dafa rëy ci man lool te xawul ma ko sant te lépp lu ma yëkkati rek bëgg koo sant lu mu rëy rëy ma xool ko lépp di fa may naanal daal ko ci bëgg kon Sëriñ Tuubaa itam ñun amul dara luñ ko mën a sant ndax luñ ko jëfal rek bu dee àll taalibe ko leneen lu mu doon itam sëñ Tuubaa tax nga mën ko am. Mhm. kon bu ci sëñ Tuubaa lu mu mën a doon liggéey lu rëy boo ci génnoon sëñ Tuubaa dara dootu ci des. moo tax am na gàmmu bu ma sant ci jaareen am kenn koo xam daa wax ne daa bëgg togg teraanga yu bari teral la mu gënee sëñ Tuubaa yi ba ci pénc ma ba maa ngi ja gàmmu gi jàllee mu ñëw sëñ bi ko leeral ne ko def naa nangam def naa nangam def naa nangam sëñ bi ne ko ana loolu jublu mënoo xanaa. yéen daal delloo ñu gën a mën a leen kon yàq gis ndax la man ba ba man ko maa la kon sëñ Tuuba nañ xam ne liñ man ndax ba sëñ bi ñëwagul kat xéewal yii topp nit Cheikh Issa ma soxla la sëñ bi ndax bu baaxee dafa am ne ci sama xol ne xel te maa tàggoo moom tam jaaxal mooy ñàkk ko li ci lislaam santaane ñax góor bu fendiwul te fayu ko li ci lislaam wax la gis te nit ñi kenn ku ci ne boole ko ko ay junni nit ñu topp ci ginnaaw bi ko jëlee loolu nag teel a maa ngi doon xaw ma nag ba xam ëllëg ñu suñu borom defal ñu ko suñu tubaab ne ko képp koo xam ne dañ lay jox laajoo ko dañ doon jox ngir sama jëmm dara warul la sax. waaye ku ko ci laaj nag sama yu ndigal ne ko Issa lii nga ma laaj lu mat a laaj la war nga ñëpp it ndax moom sëriñ bi ko mooy ci boppam loolu ne mën na ko laaj sëriñ bi te mu ko laaj sëriñ bi dana ko ci tontu mu ne ko dafa am ko wax ne ma ashhabtum tayyibatukum fi hayatikum dunya washtamta'tum biha fal yawma tujzawna 'adhabal hun bima kuntum tasna'un ësëblu tayyibatu bi hayaati dunya mooy li ñenn ñi di wax rek naan muur yi dëkk seen wërsëg bi ci àdduna ji lay am Cheikh Issa ne ko Mbàkke te loolu jaaxal mu ne ko Issa yow suñ borom xamal na ne ma leen defal bu leen neexee téye ko bu leen neexee joxe ko leen ci dara leen fekk bon ci dara loolu lañu Sëriñ Tuubaa fàggul kon Sëriñ Tuubaa li mu ñu defal buñ jëloon suñu dund gépp jeexal ko ci mënuñ ko fay ndax da seen daal boo xam ne jullee bu war a yëpp fi ko Sëriñ Tuubaa fekk te mos ci fekk ay mu kenn kon julli danaa war ndax moo tax suñu borom julli la suñu borom jaamu ko moo tax mu bind te jaamu bi lu ci ne bu ko suñ borom seggee na mu ko diglee nga nga nga defe ko noonu boo ko xoolee segg ko mu kon lépp dañ koy def ngir moo tax yàlla bind ñu mooy li li ñu war a def tam waaye amul dara luñ ci yaakaar suñu ëllëg wóor nañu kenn ku ci ne yàgg nga xam na leen jàmm yàlla na ko suñu borom defoo ko daa da ngay fa nga may la ca des nag suñu borom mottalee ko sa yéene ndax nii moom la am ndax moom la am lii kon nag ñu soog ci ñu gën a góorgóorlu jàmm yàlla gën a góorgóorlu liggéey Sëriñ Tuubaa te xam ne loolu Cheikh Mamadou Mountakha di wax rek noonu ma ko faral di waxee waaye li ci am solo rek mooy lépp luñ ci def rek. ndax julli gi dalaa war koor gi dalaa war kon moom moom moo suñ ko joxal waaye tuyaaba jëlee suñ ko doon fay rek sañ ko doon fay. bu baax la seen daal waxoon ne boo yoree kooku ndox te bëgg jàpp bëgg naan da ngay fekk kuréel géej nga sotti ca kenn mënatu la ca génn kon nañ ko góor bu baax ci gën a liggéey suñ tubaab bari ko sellal nag te xam ne suñ tubaab nu ko gis tamit sëñ Tuubaa nanguwul ndaw jëf sëñ Tuubaa nanguwul itam lu mu doon da nga yaakaar ne mënoo ca ñàkk sëñ Tuubaa nanguwul doon te loolu ñun yaroo ci keppaar doomu sëñ Tuubaa ñoom ñi sëñ Tuubaa nekk seen wàllu sax mosuñ ko ñëw mosuñ ñoo ñëw jàpp ne def nañ dara sëñ Tuubaa coono ndax sëñ Tuubaa kenn defal ko dara coono lu jëm ndax ba muy liggéey kat dafay bàyyi njaboot bàyyi lépp dem liggéey ba déet si waat ba muy dem yóbbaale kenn ba muy ñibbisiwaat itam àndaale liggéey kon kenn góobewu ko ci kenn fet kenn wettaliwu ko ci kenn defalu ko ci dara itam man sama dégg ci bànd mu wax ne ndaa yooyu newoon ci biir kër gi dañ ko daan tuy guddi guddi bu jot suñu choix yi bàtte boo ko def ñu ko jiitoo bis nag kenn ci taali bi dane naa ci naam ba xam lu ci suñ bi jublu mais bañ xëyee ndaa yëpp jeex mu des boobu nee na sëñ bi daal di ak xaal bu métti daal ana ko ci jëfandikoo waaye mu teg ci baat boo mu sol mu ne boobu miim xewagul nee na kooku nag mbàkke man bi maa ci naan sëñ boo liggéey bu doon ko bu doon ko jëfandikoo de ndax waa ahlu badri ñoo te seexu nañ seen gis kon nag ñu leen di sant bu baax di gërëm ñëpp di gërëm bokki taalibe bi yëpp suñ maamu ñi nga xam ne mooy seen jëriñ maa ngi teg yow ci loxoom ñu jàll ko bokk moom sëñ bi waaye sëñ bi ko boole ci baat na mu mu topp ko mu topp ko lool jàpp ko moo ko sëñoo ko bëri sëñu ko bëri xam ngeen ni mu demee ci yoon bi mm-hmm. suñu Amadou Ndiaye bi itam laa tegoon ci seen seen loxo ginnaaw suñu fàllu busu moom itam ñu mu koy sant bu baax ci posture mu taxawaay bi ci liggéey bi di ko ñaanal yàlla mu àggale ko fa amiin amiin ba suñu tubaab bi amiin amiin suñu sora yéen ñëpp ñu ngi leen di seen taxawaay mm-hmm. ndax bëgg ngeen ma bëgg xam naa ne bëgg ngeen bëgg suñu tubaab rek a tax ndax li ma ci yéen def leen ko def leen ko moo ci yéem mooy yéen a gën a bëgg sax soxlawuñ laa gis loolu moom yéen na xam naa surtout wala kat te soxna mooy daa ma si dégg mu ne si ñun Moussa ko ne ko may moo nag boo bëggee xam fële nit ñi teg xoolal fa nga teg suñu tuwaay soxna kon si masa seen moom itam ci pësif moo taxawaayam ci liggéey bi te lépp suñu tuwaay rek a tànk suñu xaalis jeex na suñu laaj bi ñëw suñu waxtaan bàyyiwul kenn boo tuddee kenn yëpp ñu ngi sax di réew ak di tudd di leen xamal jëf yi ci màgg bi yëpp it accident ndax lu leen ci war a def ngeen ko ba def ci lu kaw suñu kon ñu ngi ñaan ci dara ji Sëriñ Tuubaa lam daal woon ci bis bii ci gànnaag seen xaalis képp ku ci jëf rek wala nga yéene te ñëw foofu yàlla nañ si tubaab. amiin asalaamaaleykum wa rahmatulah.